ma biisal leen beneen wala ma daal di tàmbali rek waaw bàyyil ma biisal leen bii. dama ne. partage leen nag. ils prendront conscience de leur responsabilité par rapport à leur propre histoire. fato not fato de ocupar taxawaay bu baax a baax a baax di len jox sen seen way <clears throat> comme ni ngeen ko xamé nak non la ko xamé du ñak bo nekké ci combat nga and ko ak ay nit euh ci suba ba légui ma ngi gis ci bannière yi ndaysan xalé yi di fippu di bind grand li grand lale donc euh, j'étais un peu occupé dans les activités donc amna lu bari lo xamné wax deug yalla gisuma ko euh, waaye bi ma jëlee sama temps aussi j'ai pris à peu près cinq minutes à écouter certains propos j'ai eu des compréhensions ma am yoo xam euh, donc euh, comme ni ngeen ma je ne vais pas quand même perdre le temps à me concentrer à certaines choses mais lépp que gis ci àddina leeral daf ci baax parce que sama yaay daan na ne sama baay aussi wala doomu aadama en général mag ñi dañuy ne ñu ne seytaane waxul dëgg waaye soppi nay xalaat donc euh, dafa baax yenn saay boo déggee ay propos nga indi ci ay leeral euh, propos bi ci njëkk sama yaay dëkkale nañ ko Kaffrine xaw ma Vélingara yóbbu nañ ko fépp mais je peux vous assurer que Ma maman est très bien en santé et elle est vraiment là où elle doit être. Et je suis, comme Nimalen Kouahé, un citoyen digne du Sénégal et un patriote. Euh, sama yaay nag euh, réer réer dafa bax ci adina waaye bi muy ñëw Amérique c'était en 1972 xawma ma ndax xam ngeen luy 1972 ñu bari ci donc si on le calcule bien dewen bii di ñëw deux mille vingt deux bii ngeen di ñëw campagne sama yaay ci lay am juróom fukki at ba mu ñëwee Amérique cinquante ans fifty xam nga yenn saay dafa important aussi booy waxtaan ak benn nation mënuloo fi ñëw di tiitaru waaw sama yaay indi naa ko mu ngi nii toog sama wet wala ñu ngi photo j'ai amené ma maman en Amérique ça c'est pas le but des lives Lolo, c'est quelque chose qui est personnel mais sama yaay ba muy en Amérique c'était en 1972 je pense que je je l'ai rappelé pas mal de fois te ñi may déglu nak samay nawle lañu ndax samay frère ak may déglu samay sœur samay dëkkandoo samay xarit moi mon papa était diamantaire da daan dem Anvers ñëw Amérique dem fu il faisait de grandes affaires sama en 1972 la ñëw mu nek Amérique parmi les premiers africain yoo xam ne ñoom ñoo daan ñëw Amérique ci affaire baana baanawul moodu mooduwul musul dugg ci dara nag loo xam ne day détaillé wala di jaay lii wala di yëngul fële déedéet loolu indiwu ko woon Amérique moom jëkkëram a ko indi woon Amérique ne ko toogal benn place lu la neex lekk fu la neex dugg fu la neex génn c'est ma famille qui m'écoute et c'est le monde te duñ ma bàyyi ma fen euh, ci saraxule yu takkoon jabar may ko cinq kilos or sama yaay ci ñooñu la ñu bokk donc loolu dañ koy teg de côté mais ba muy mujj ndeysaan ñun ñoo nekkandoo woon Amérique man ngeen dem seet ci sama Facebook personnel ñi mu intéressé man ngeen faa dem dugg xool sama yaay sa toujours bu ñëwee Amérique on est ensemble juma sax ñun ñooy ànd julleendoo ko ici aux États-Unis donc pour ñu bëgg a euh, leeral ne yaayu diw mas naa dem wala masta dem defe naa boobu leeral nañ ko ñu teg ko de côté du dëgg loolu benn la léegi deuxième bi dégg naa aussi ci ay cotisation fay avocat man Tunkara biñ ma jàppee ci mbir bi ma Macky Sall accusé loolu tamit dinaa ci indi ay leeral yu ndaw rek leeral yooyu ni ma koy indee mooy euh, ñi dajale xaalis bi ma jox ndeysaan benn respect bu mag suñu grand maam Thierno macha allah ci sa liggéey bu rafet ak Sali Diop vraiment ma kontaan lool ci yéen. ak suñu sœur ba Oumou Kintaki ak ñi ci bokkoon yëpp sénégalais yi à travers le monde ñi doon ñaan ñi cotiser ñoom maam seen France yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm mais man jour biñ ma jàppee ci ëllëg sa laa fay sama avocat moi mes frais déglu leen mais frais légal déglu leen déglu leen Amérique liigul fees lañ koy tuddee les frais légaux man sama frais légal maanaam avocat bi ak ñi ko wër ak équipe bi xaalis bi ñu soxla woon pour Atema, fait 48 000 dollars. Ok, si vous voulez que je vous Madame Sefa, ce que je fais, c'est 25 millions, voilà, nous 26 millions. Si vous voulez globalement, avec Frey, avec l'IP, ce que je fais, c'est 75 000 dollars, la compte, en liquide. Donc, je vais vous dire que mon avocat, je vais vous faire 7 000 dollars. donc li yi dajale yépp ak seen njàmbaar ak seen mbaax ak seen xol yu rafet te bi ma tekkee ci biir kaso bi sax dama daan yónnee xaalis Sénégal laaj leen ñi ko xam samay responsabilité samay xarit samay mama yi ma adopté ak samay doom yi ma adopté ak école yi ma adopté ba léegi dama daan yónnee li ma waroon yónnee Sénégal loolu sénégalais yi danañ ko seede loolu duma ci sori mais xaalis ba ñu ma dajale loon sénégalais yu baax yi yu laabiir yi six mille dollars li ñu dajale

ñëw continuer suñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy Sénégal donc loolu rek laa bëggoon indi ci ay leeral loolu buñ ko indee mu leer defe naa du amati beneen discussion ëllëg kanta nag ñu ngi kontaan ci un pour un euh, tous pour un maanaam pour ñëpp dajaloo saa bu sénégalais amee jafe-jafe ñu jàppale ko mais vraiment maa ngi gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jàppale ci combat boobu nga xam ne moom laa doon xeex vraiment te ñu ànd ak ki nga xam ne moom mooy ñun suñu président muy Ousmane Sonko muy xale bi nga xam ne moom moo ànd ak jamono te ñu bëgg ko lool. waa mais gars yi aujourd'hui dama bëggoon indi ay waxtaan mais waxtaan yi ma bëgg a indi te ma bëgg cee concentré wu te mu doon li nga xam ne moom moo intéressé sénégalais yi déjà dama koy tàmbali ci li nga xam ne moom mooy la séparation des pouvoirs xam nga réew boo ci nekkee. Euh, maanaam naa ko tàmbalee déjà ci ay étape. yu am solo parce que euh buñu le ko la traite négrière a commencé dans les années 1600. euh, plus précisément 1619. euh traite négrière bobu ndaysan dem na ba jeex après ñu ñëw ci colonisation bo xamné tambali won na 1914. 1914 bobu tamit ñëw jeex ba euh, ci li nga xamné mom moy boumu ndiam donc lolu nak liko waral moy comme ni len ko waxé ba légui on va venir sur la séparation des pouvoirs xam nga séparation des pouvoirs ñu bari comprendre ñu wala bok ñu bari xamuñu ko te bu fekkee nit ñi wat nañ sen xel touti dinañu gis né ci institution yi am doole ci aduna bi yëpp séparation des pouvoirs bobu mom mo len sauvé ba ñun ci rew oncle sambi bo len fatlé ko amon nañ fi ben président Donald Trump ci li yagul dara té duñ ko bayyi won té suñ ko bayyi won touti rek mom Donald Trump ni kon dinañu duggal ci nguute go xamné duñ ci mëna a donc je pense que doomu adamay nañu bayyi yu mel nonu xel bu baax a baax baax donc la séparation des pouvoirs tay buñ ko waxé ci Sénégal dañuy né pouvoir déjà exécutif muy ki nga xamné mom moy présidence de la République ak li nga xamné mom moy gouvernement lolu moy pouvoir exécutif légui pouvoir exécutif bobu mom moy ki nga xamné mom moy mom lañu la ñu jël suñu kóolute yëpp jox ko ko pour lan pour mu doxalal ñu réew mi mais mom pour mu mën doxal lolu day jël ay mbir diko tek. manam day jël ay décision mais décision yoyu muy jël da koy yóbbu fa nga xamné ne moy assemblée nationale assemblée nationale du pouvoir législatif ñom ñoy ñi nga xamné ne ñoy ñuy passer suñu ay loi loi yoyu suñ ko paasee ñu jox ko police gendarmerie ak ñoomin seen ñu doxal loi bi ak justice ñettel bi di suñu pouvoir judiciaire muy justice bi et je pense que tant que jóguñu ci suñu bopp pour séparer ñetti pouvoir yooyu suñuy problème du mën a résoudre donc problème bi ñuy jànkoonteel toujours mooy ñu ngi am ki nga xam ne yoonam nekkul ci législatif mi ngi ciy dugal affaire am ki nga xam ne aussi yoonam nekkul ci judiciaire mi ngi ciy dugal affaire am moom mooy ki ñu yor tey ci suñu bopp réew ñu naan ko mag Macky tey dafa jël ñetti pouvoir yooyu yëpp mu daal di ko tënk

ba légui amna ci ño xamné ñu ngi top li nga xamné ñomit mom moy trajectoire bi ñu wara top mais je pense que ñun doomu aadama yi déjà ñun ño wara deugal ñetti pouvoir yooyu ñu dooleel leen parce que c'est très très très important pour ñu wax ci lool tant que séparé wuñu pouvoir yi tant que ces pouvoirs ñun sénégalais le sénégalais lambda luñu pouvoir yooyu pour séparer leen suñu réew manta am indépendance Madame, nous ne pouvons pas vivre librement il faut que doomu nous diko baye xel donc lolu aussi beaucoup qui sait. demander bari ñun lañu wara laaj ñun on doit nous demander nous des questions lan mo waral suñu pouvoir yi tay ñu ñu nous leen fayda tuutal leen ba fi ñu nous non lan mo tax tax suñu pouvoir yi ñom n'yep ñu nasaxal sen doole wañi sen doole ba fiñ demandez-vous ces questions lan motax suñu pouvoir yi ñu ñak solo ñu ñak solo ba fiñ non seulement dañu lo suñu ay pouvoir doole waye tay bo xolé Macky sa seule puissance est de faire insulter et de faire dénigrer et de faire attaquer les Sénégalais en toutes ses positions sénégalais amul benn sénégalais tey boo xam ne mi ngi en sécurité il faut doomu aadama yi bàyyi loolu xel amul benn sénégalais tey boo xam ne mi ngi en sécurité dinaa leen dégluloo benn ojo balaa may déglu balaa ngeen di déglu ojo boobu dama bëgg ngeen delloo si waat seen xel rek comme ni ma leen ko waxee léegi euh, incha allahu rabbi euh, ñu ngi bàyyi xel. ci lépp loo xam ne mi ngi dox ci réseau bi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax pour ngeen bàyyi loolu xel xam leen na ñu ngi bàyyi lépp xel te incha allah temps bi bu jotee lépp lu ñu war a def dinañ ko def saa bi ñu ko waree def incha allah déglu leen audio bi. Bani Sougou sénégalais yu bëri xam ko ci euh, bind yu muy bind pour ay état de droit ñu respecte sunu loi yeeg sunu texte yi nga xam ne mooy màndargal na Sénégal république la. waaye Sébani li ma lay njëkk a laaj moo di ban jàngat nga def ci préfet sous préfet yi nga xam ne dañoo xëy di rejeter lu dul ay liste yoo xam ne dañoo bokk ci opposition bi. waa jàngat bi ma ci am maa lay gërëm Pape ci invitation bi. jàngat bi ma ci am moom mooy préfet yi ak sous préfet yi euh, autorité administrative lan waaye yoon lim leen jox ñu seen rôle bi ñu war a def. setlu nañ ne defuñu ko moo tax booy xool pratiquement ci ay gox yu bari liste opposition yi dañ leen rejeté nga setlu aussi ne ci pratiquement la totalité des gox amul quasiment liste Benno Bokk Yaakaar bu ñu rejeté loolu lenn rek lay leeral mooy préfet yi ak sous-préfet yi nekkuñu fi pour jouer rôle bi nga xam ne moom la leen euh, euh, constitution bi jagleel dañ fi nekk ngir nguuru Macky Sall loolu la ñuy doxal préfet ak sous-préfet. waaw mais ci loolu gis nañ ne quand même magistrat yi ci cour d'appel euh, ñu ngi remettre dans leur droit liste yi nga xam ne dañ ko rejeté loolu lu mat a rafet lool. waaw loolu mat a rafet loolu mooy euh, seetlu nga ko ci gox yu bëri cour d'appel effectivement ñoom dañu jël ne ni liste. opposition yi ni leen euh, euh, ni len préfet rejeté teguñu ko ci yone donc lolo tax ñu rétablir ko lolo wane na ne en tout cas sénégalais yi ñu doon ŋàññi justice ba léegi danañ continuer diko ko ndax amna ay juge ak magistrat yo xamné sen euh, rôle euh, sen mission dafuñu ko mais amna ay magistrat yo xamné tamit ñoom ñu ngi doxal yoon ci ni leen ko loi jagal leen ni leen ko constitution jagal leen te loolu ñu koy rafetlu mu war na loolu mooy firndeel rek ne préfet yi décision yi ñu jëloon teguñu ko ci dara ci ar ci ci ci ci ci arbitraire lañ ko teg ak ci lu neex Macky Sall. waaw léegi nag coow li moo di dafa am loo bind nga ne liste Benno Bokk Yaakaar bu dakaar bu jaaree ci yoon dañ ko war a rejeter lu tax nga wax lu ñu mel. mais euh, Pape Alé dafa am loo xam ne da nga ko tàmm wax te mu koy dëggal xam nga da nga tàmm wax ne euh, euh, sàcc ndënd yomb na koy tëddee moo jafe li xew ci liste benn Bokk Yaakaar bi nekk Dakar mooy du ma ne sax list ñaari liste la dafa am fraude damay leeral loolu pour mu leer nañ xam nga élection locale dafa am ay charte yu ko tënk charte yi ko tënk moom mooy loi électorale Pour xol dafa am décret bu décret 2021 1368 68 mom né moy répartir le nombre de sièges par conseil de ville xam nga 19 communes mo fa am pour Dakar pour ci scrutin décret bobu dafa né 55 conseillers ñom ñofay ñofay nek mais tamit code électoral bi dafa am lu lu lu mu wax dafa ne ci scrutin proportionnel bi bu nekkee cinquante cinq lan xam nga dañu tóol faaw dem ci yokk benn muy cinquante six après nag ñi nga xam ne bu dogal amee euh, euh, ñoom ñoom ñooy euh, ñi ñuy tuddee suppléant ñoom ñoo war a remplacer titulaire yi da ngay jël loolu nga xaaj ko ñaar nga diviser ko pour mu jox nombre de suppléant kooku code électoral article L deux cent soixante sept alinéa deux moo ko wax moom moo ne da ngay jël nombre de conseil bi cinquante cinq nga yokk ci benn bu nekkee dafa tóol nga yokk ci benn muy cinquante six nga diviser ko par par par ñaar mu jox la le nombre de suppléants donc nombre pour Dakar nombre conseil yi dafa war a nekk cinquante cinq nombre suppléants yi nekk vingt huit waaw lu tax nag ñu am ñaari liste benn bokk yaakaar foofu laay ñëw xam nga am na benn liste boo xam ne yow Dakar Matin publier nga ko ak yeneen sites yu bëri yoo xam ne booy seetlu di nga gis ne benn boo yaakaar daf nañ ci 55 conseillers pour titulaires yi ci suppléants yi nga gis ci 22. Hmm. mu am beneen waaw mu nekk 22 xam nga donc liste boobu baaxul ndax euh, liste boobu day irrecevable c'est-à-dire que code électoral article 279 dafa ne scrutin bu nekk muy scrutin proportionnel wala majoritaire liste yi dañu war a complète moom mooy bu nekkee list dafa am mu am suppléant wala titulaire bu ci manqué liste boobu c'est irrecevable te déglul bu wax li ma lay wax kenn mënu ko kenn mënu ko régulariser c'est-à-dire irrecevable même boo demee cour d'appel cour d'appel daf koy confirmer li may wax ni loolu dafa am solo pour ñu xam donc liste bu njëkk bi dinga publier yeneen sites yi publier ko vingt deux suppléants moo fa nekk boo seetloo frein bi vingt deux suppléants moo fa nekk ak tampon préfet deuxième liste bi génn dafa am cinquante cinq titulaires vingt huit suppléants ñaari liste yëpp am na tampon préfet xam nga loolu moom moo lay wan loolu lu leer nañ la mooy wane ne dafa am benn liste boo xam ne dañu ko rocc ci dugal beneen ndax tampon préfet moom kenn mënu ko euh, kenn am tampon bok tam te tamit li am solo li tax ma fraude bi sax mooy boo seetloo liste bu njëkk bi nga publier ak sa yeneen sites yi publier tampon préfet bi ci page bu njëkk bi dafa nekk à gauche ci deuxième page bi entre ki nga xam ne moom mooy dernier titulaire bi cinquante cinquième titulaire bi ak premier suppléant bi fa la tampon bi nekk liste liste moy liste bu baax liste liste liste bu baax man liste coalition walu de xolé ko liste coalition walu nga jël liste nga publier même position la même position bi la bu 22 bi bu bi mais ñoom liste pour liste euh, deuxième liste bi ñu six personnes. parce que list bu njëkk bi 22 suppléants moo ci nekkoon bu bu mujj bi 28 nekk ci te tampon préfet ba pare tampon préfet bi fu mu nekk ci deuxième list bi boo ko xoolee méngoowul ak list bu njëkk bi loolu mooy mooy prouver rek que ni fraude bu bu bu bu bu bu bu doy waar moo fa am ñaari liste benn bokk yaakaar boo am euh, euh, au niveau de coalition Dada te kooku yoon daf ko dàq. yoon munul nekk. donc lolu motax mané liste Benno Bokk yakar bu Dakar baxul c'est irrecevable té ñom ci yoon préfet bi waru ko woon nangu. Seybani Sougou euh, maa ngi lay sant di la gërëm ci leeral yi ñuy. xam nga boo leen dégloo li suñu frère Seybani Sougou wax euh, à travers notre frère Papa Alé c'est quelque chose de très dangereux. Et je pense que parfois, dans une république, euh, le danger qui se pose, c'est parfois que nous dañu am problème mu dégg-dégg dama leen di indilaat C'est audio audio boobu dafa am ay propos yu mu tenir je ne peux ni confirmer wala ni ma weddi mais xamna naa ne dañuy génnee audio bobu tas ko yaatal ko pour information yi mën a yegg. fi mu war a yegg ña nga xam ne ñoom ñooy euh, les plateurs les planificateurs, les malfaiteurs, pour ñu xam ne on est prêt et on restera en garde incha allahu rabbi déglu leen audio bi. oui asalaamaaleykum monsieur Diokh ça va na ngeen def waay mais macha allah hein, félicitation ci liggéey bi ngeen def man moom temps yi dama xaw a dama xaw off je suis complètement débordé moo tax. Euh, donc euh, tu dugg ci sen euh, ci euh, mais en tout cas euh, courage et bonne continuation pour le reste alors je voulais partager avec toi une information bon tu vas apprécier ndax tu vas en informer le groupe ou pas j'ai des connexions au niveau de la présidence il y a une information qui vient de m'être donnée en fait il y a une stratégie de fraude qui est en train de se, euh, de se dérouler. Bon, Ben vie entre autres, ce sera le jour du vote. Ils ont donné des instructions aux préfets et sous-préfets qui sont dans la région de Djurbel et au niveau de toute la Casamance pour qu'à partir de 15 heures, le jour du vote, que bulletin Sonkoyi euh, n'est en rupture. Voilà, donc euh, les préfets, certainement, il y en a beaucoup qui sont des complices de la paix, ils vont jouer le jeu. Le une bi stratégie là. Les dans la communication nous faisons si siiwal affaire pour que nous le parce que pas direct ils vont ils vont ils vont faire machine à l'arrêt. et le gars il est très bien informé il travaille à la présence. Benen, bi au niveau des duplicata L'objectif était de faire voter deux fois beaucoup de gens. Écoutez, duplicata. Aujourd'hui, ils ont leur pièce d'identité il y aurait en même temps une récipice. Récipice, vous moom la ñuy yóbbu ñu pièce d'identité avec un autre numéro de bureau de vote ñu deux fois leur nom dans mais c'était déjà programmé L'autre tax ñu def bi donc loolu c'est déjà programmé ils ont un truc pour effacer encre indélébile bi buñu ñu voté ci ben endroit après dem wat fenen Euh, donc je pense que cette histoire là il faut que il faut il faut en discuter encore comment faire face à cette machine de fraude nee na ma les plus euh, aux autorités de PASTEF jot parce que c'est surtout PASTEF qui est visé parce qu'ils sont conscients que PASTEF constitue aujourd'hui la principale menace pour euh, euh, pour pour Macky Sall donc affaire boobu je ne sais Wi à toi d'apprécier si tu as la possibilité de remonter l'information ce serait extraordinaire parce que gars il y na nee na qui daal ba donc mu voilà. donc boobu je pense que dégg ko ay mbiru duplicata la fa wax léegi mbiru duplicata yooyu nag moom moo ñuy indiwaat ci benn information bu baax maanaam dama leen di indil li nga xam ne moom mooy mbirum duplicata yooyu nga xam ne moom la teg léegi wax ko dama leen di indi foofu ci duplicata yi may leen ma une seconde incha allah ma indi leen ci mbirum duplicata yooyu parce que a déjà la vidéo dama koy seet ci sama vidéo yi rek may leen ma une seconde ou deux ma indil leen mbiru duplicata yooyu ñuy wax parce que on dans un pays u ñun suñu njiit yi daanaka amatuñu lu ñu rus wala amaana sax euh, dépassé na ñoom seen seen ñàkk mbëgg-mbëgg Sénégal euh, ñàkk naa dépassé na foofu mais je pense que boo leen ma mayee tuuti rek ma indil leen mbiru duplicata bobu parce que vidéo bi mi ak man dama koy liññati ci sama vidéo yi rek touti inshallah ma indil len ko ngeen déggal ko sen bop parce que ce qui se passe chez nous devient extrêmement grave et je peux même dire euh, plus que grave parce que bo xolé tay rew mi fi mu euh ba légui ñi wax ay waxu fraude électorale ba légui ñi wax ay waxu duplicata je pense que war nañoo mën a toog ñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay ci suñu parce que le Sénégal est en danger notre démocratie est menacée et que aussi lii nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi fi mu ne tey kenn sàmmatu ko gars yi jéggal leen ma rek damay ñew ci euh, sama vidéo yi pour indi leen vidéo duplicata bobu ñuy wax parce que kii naa ko ba pare c'est déjà dans notre page mi ngi nii ma indi leen ko ngeen déglu déglu leen. ñëw ñu waxtaan ci wàllum carte d'identité yi. ñi nga xamante ni Macky Sall mi ngi koy defaat te joxe bi am njuñ njaaj. ñun tey fii ci commune bu Yeumbeul Nord mun naa wax ne njuñ njaaj ji dafay ëppee dayoo ndax lii man mooy sama carte d'identité nationale gis nga ko. bii mooy sama carte d'identité originale ñu dafa ma sama bureau de vote mu nekk école Malika récepteur bureau numéro cinq bureau numéro cinq tey ci yoon bu ma noon jot carte d'identité dama ci waroon a yóbbaale sama récépissé gis nga récépissé baa ngi nii te ni ma jotee carte d'identité bi ab ASP moo ma xàmmee ci koñ ba yaakaar na suñu waa kër ay apéri si leen motax mu dem tan ko ràññee ko xamé mu ci nit ñi mu ñu indil mu ko suñu kër té temps wad li amoon moy bu bëgg jot sa carte d'identité da dem police bayyi fa sa récépissé ñu indil la ñu jox la sa carte d'identité bon benen ñu njaaje nga noonu amul ñaareel bi ñu ñëw ma encore benen carte d'identité nationale gis ngeen benen carte d'identité mo nekk ni ci kaw bo xolé amul différence ak ñum ñaar ñëpp face bi benn bi la parce que li nekk ci fi mo nekk ci fi mais ce qui est grave bo tourner la page fi carte d'identité bi dañu def école bataillon de la marine bu nekk fi ci yëmbal bureau numéro 3 fofu la ne ma laay voter. sama ancien carte d'identité mooy bu njëkk génn ñi def fa bureau numéro 5 école récepteur bu Malika. Nous nak bi bo xolé duplicata la bo xolé duplicata la parce que mooy nii encore ci photo bi même chose nga fay alors que bi ni ñun ko muy le 15 janvier 94 bonne filière même chose mais une nekk bureau de lu tax ma ne njur njaay ci am pour nga am duplicata il fallait que sa di d'identité bu nationale bi réer ba mënoo sa jot nga dem police ñu defalee certificat de perte bu ñu la defalee certificat de perte nga dem déposer ko niveau de commissariat ñu jox la délai bien déterminé ci lañ ko mën a defar après nga ñëw ñu récupérer la ko jox la ko mais man dañu may defaral certificat certificat de perte amoon si sama ginnaaw loo xam ne yëguma ko comme si sama carte daal dafa réer te maa yore sama biir sac yëmu ci boo gisee ñu defal di biir kataa yu mel nii état bi dafa dafa laat yeneen quatre cent soixante cinq bureau de vote fictif te quatre cent soixante cinq bureau de vote vol yooyu kenn mënu wax fu mu ne parce que école de bâtiment marine lii ni amul école bi am na mais amul centre nekkul centre musul nekk centre képp ku fa dem di vote yi boo voté ba pare dañ la fa defal ay mandataires yu mel ni benn bokk yaakaar fa nekk ay passif ay so nanga ma nanga mais ñun ñëpp ay apéri si leen soo wanee ginnaaw ñu changé seen filière defal ko Macky sal loolu mu leen tax a jóg te boo si kii tey dama yor sama ñaari carte d'identité ak sama récépissé dégg nga plus sama ancien carte d'identité numérique muy 3 plus récépissé muy 4 ñoom nag li garaaw ñu ngi dugg ci kër yi di récupérer sa original bi mooy daal d'identité bu njëkk bi bii dañ koy récupéré bu ñu jox duplicata ba pare dañ lay wax naan ana sa original bi jox ñu ko parce que boobu dafa ñuy jum ci imprimante bi c'est pas suñ kër am na sama benn tante ñu ci jox jox original ñëw indi ko duplicata bi ne ko léegi dañ leen jox sa original bii nii bi ñu nekk jox dafa am faute alors que faute boobu ñoom dañ koy récupéré ba pare naan dafa am faute yu bari bari jox ko kenn si ñoom koo xam niroo ñoom image pour que jours yi ñu dem voté yow tey boo demoon ICOP bataillon marine dafa ne yaa ngi vote doo fekk bureau de vote wala boo ba nga fekk it soo paree Macky Sall lañ koy voté léegi nag li ma leen bàyyi loo xel mooy que ne képp ku ñëw seen kër naan jox ma sama carte d'identité wala kaay ma kaay ma jox la sa duplicata nga jox ma sa sa carte d'identité lu bëloon ko nangu. parce que yi dañ koy sàcc te boo xoolee ñu daf quatre cent soixante cinq bureau de vote nouveau bureau de vote plus ñu ñu ñu orienté ci lu toll ci soixante dix neuf mille soixante dix neuf mille je bien.

parce que réew mi kat toll na foo xamante ni ay borom xam-xam ñoo ko mën a jiite mais pas ay sàcc ñoo ko jiite. fii ci Yeumbeul Nord nag commune bu Yeumbeul noor fi ma dëkk muy Aloubaye ñaax côté marché Fatou Doumbouya foofu mairie bi ñu ngi yónni ay nit ñoo xam dañu mbóo na ay ONG leen di dugg si kër yi di récupérer carte d'identité di la jox ay duplicata bañ leen. tey tey jii maa ñoom ñëw na sama kër pour ni kat naa ko récupérer maa ñoom dañoo lànk ñun dee fi ñëwaat suba te app naa ko nag ñu dem ba dig mais du jaar commissariat bu bu bu bu bu yëmbal wala bu Malika ñàkkul na ñoom it nañ mais app naa ko dig wala ma jël carte d'identité bi mu li nga xamante mu duplicata ma damate ko parce que am ma soxla si ñoom te boo ko jëlee jox ko ñeneen jàppal ne yow say données yëpp mu ngi circulé ci dëkk bi te conséquences yi buñ ci yegg see yow yaa ko gën a subir jaayeen jëf. gars yi je pense que lii suñu frère bi wax nii. Euh, kenn ku nek ci ñun man na ci gis bopam et je pense que parfois notre problème problème bi nga xamne mo gëna reuy ci suñu ay problème moy dañuy gis li nga xamne mom mo ñuy yóbbu vraiment dans la dérive te duñ ci nangu bàyyi xel gars yi jéggal leen ma une seconde rek dafa am lumay euh, visionner Simon Simon mu yaanaamaar moom bàyyi nañ ko moom euh, machallah, euh, libéré nañ ko pour le moment léegi ñu ngi ba léegi ci li nga xam ne moom problème mu kilifa voilà donc dañuy continuer toujours le combat Simon génn donc des na kilifa inshallah allah ñu ngi ñaan ci délai yu gën a gàtt ci yu gën a gaaw mu pour ñu mën continuer porter li nga xam ne moom combat de l'opposition combat bi nga xamne ne mo wara genné Sénégal ci buumu njàmm mais dafa am lo xamne dama leen koy wax pour ñu continuer li nga xamne mom moy suñu waxtan mais frères et sœurs euh, des personnes comme moi ñu ngi ñëwone Amérique comme mineur mineur la fi ñëw j'ai quarante ans dama leen di bay ngeen defal sen bop sen calcul donc euh, bu ñu fi ñëwé en tant que mineur on a fait notre choix on a fait notre choix de vivre sénégalais et de marier une femme sénégalaise et de faire des enfants sénégalais te choix bobu liñu ko jox moy tout simplement ñu won ñak li nga xam mom moy suñu bëgg bëgg réew ndax liñuy wax toujours ci wax wolof ñu ne jësit yàgg na ci ndox waaye mënul soppeeku bant jësit lu mu yag yag ci ndox mënul ku bant donc je pense que lolu buñ ko waxé té muy deug di waxu waxu wër muy waxu wolof je pense que lolu dafa am lum mais depuis comme ni malen ko waxé euh, l'esclavage euh, nous avons eu des problèmes à défendre nos droits droits yi tay mu melni ni droit de vote bo xolé ci vote bi li tambalé ba ci certificat de résidence dang koy xeex li tambalé ci kayitu juddu dang koy xeex li dem ci carte d'identité nationale sax da ngay pour mën jot li nga xam mom moy sa carte d'identité nationale et je pense que yooyu ay mbir la yo xam ne doomu aadama yi dañ ci wara di bàyyi xel bu baax té gis nga tank xéxuñu défendre suñu droit de vote manam pour choisir mënuñoo libérer Sénégal ci jafé jafé yi nga xamné ne la nek loolu il faut doomu aadama yi bàyyi xel bu baax tank gennuñu xeex tank gennuñu wacc tant que ñun jóguñu am suñu fulla am suñu fayda kar suñu tanku tubey billahi wallahi tallaahi lazim mënuñoo genn ci buumu ndiam bi nga xamne mom lañu yor et je pense que déjà buñu xolé comme ni ñu koy waxé ñu ngi wax suñu problème carte d'identité di wax suñu problème nationalité mais est-ce que xam ngeen ne tay Sénégal Macky Sall tey jaayna c'est nos ressources naturelles Sénégal il a vendu l'or il a vendu le gaz l'or boo leen bëggee xam Sabadola gaz boo leen demal euh, fi lakkoon euh, société américaine boobu Forteza ci benn la boo leen bëggee xam tey li pétrole

c'est pas pour rien du tout ngén gis Macky matt te wa té mu jaral c'est parce qu'il nous a vendu et il va continuer à nous vendre nous ne serons jamais libérés tant que Macky est à la tête de nos pays patriote bobu du ay du ay sos du ay saga, du ay defante ñun li lii di koom-koom bi Sénégal moom ñu bañ a dellu ginnaaw benn yoon ñu jàpp ci tew a bàyyi ñu jàpp ci tew a bàyyi matt tew a bàyyi nga jaga waaw moom laa doon bëgg a wax léegi nga jaga il faut doomu sénégalais yi ngeen yeewu quand on vous dit il est temps de nous battre la réalité de notre combat lolu moy suñu réalité lolu moy deug lan moy suñu réalité ñun moy ñu xex ñu xar suñu tanku tubé ñu baña delu ginnaw nañu xex suñu ak ak suñu yelleef ñoo voter sénégalais vote bu normal sax ñu ko def xeex bu normal sax ñu ko def il faut ñu jog ñu xar suñu tanku tubéy Sénégal dañoo yàgg nekk ci ay ay ay esclavage on a duré dans cet esclavage bolen leen ñu ñuy divertir toujours pour ay miette wala ay waxu dof wala ay dugub wala dugal ñu toujours dans les terrains où on n'est pas vraiment euh, terrain yo xamné du suñu c'est parce qu'on est déjà irresponsable les patriotes sont jeunes les patriotes sont encore jeunes toujours ma fatale. leen nit naka ngay mën a demee déjà dans une page tu écoute, yenn say yi ngeen dem ci biir Facebook bi ngeen dem xol fo xamné dañuy saga suñu ay leader sen xol yi di dag ngeen di saganté di jëflanté Why? pourquoi alimenter ça mais c'est pas possible pourquoi ngeen di alimenter lolu xam ngeen Facebook may nañu possibilité bo xamné ne neex rek ngay xol lula neexul doko xol est-ce que xam ngeen lolu est-ce que xam ngeen ne Facebook Facebook bii ngay taal ci sa téléphone walla YouTube may na la possibilité boo xam ne yow doomu aadama bi lu la neex ngay xool lu la neexul doo ko xool est-ce que xam ngeen loolu est-ce que vous le savez loolu xam ngeen ko est-ce que sénégalais yi jeunesse bi est-ce que xam ngeen ne Facebook ak YouTube may na la tey man-man bo xamne ne lu la neexul doo ko seetaan lu la neexul doo ko déglu whatsapp sax may na la ko man sama whatsapp bi sax buma buma buma zappé ma gis fi ay nit ñu yonne ay message yu man neexul wala di wax ay waxu daf dama len di bloquer mais ça c'est vrai man ngeen tere bop gis ay waxi daf te concentré ou ci li nga vraiment c'est le combat et c'est le Sénégal parce que le Sénégal ça demande du patriotisme la lac. patriotisme la lac. Moi nga bëgg sa réew nga doon ki nga doon amulo complexe amulo complexe défendre sa nation pas un individu nous on défend la nation ñun la patrie lool lañuy défendre on ne défend pas un individu suñu xeex dafa dépasser le président Ousmane Sonko c'est lui qui a réveillé le fibre dans beaucoup de sénégalais Sonko a fibre patriotique bi sénégalais la def comme ni whatsapp message 2000 euros nak tek de côté kan vidéo Sonko pour ma ko répondre au contraire ay saga lañ may yónnee ay saga ay nit yuy saaga ay nit yuy vous pensez que cela peut changer une nation vous pensez que cela peut changer un pays vous pensez qu'on peut être intimidé Yen yakar nga nit ku nek ci réseau bi dundu cinq ans de maltraite cinq ans d'insultes cinq ans d'injures cinq ans lañu ñu dund fii at sans arrêt constant Yen gis ngeen ñun luñu ñu delloo c'est trop tard peine perdue parce que li ñu tax Sénégal c'est le Sénégal te Sénégal bii ñu tax a jóg du ñu dellu Sénégal wàccul buumu njaam billahi wallahi tallaay tànk Sénégal wàccul buumu njaam billahi wallahi tallahi du ñu dellu du ñu mas tant que ginnaaw tànk bi dogul parce que ne retournera jamais dans l'esclavage Nienti Temeri at 400 ans bi esclavage tàmbale ak légui. esclavage est-ce que xam ngeen Amérique américains entre eux pour abolir l'esclavage Américains et Américains ñoo xeex waxuma la de américain ak américain ñoo ba c'est ça la vérité américain et américain nous, xeex ba dag nous Nous waxuma sénégalais ak mauritanien nous malien japonais américain ak américain ñoo ba nous c'est ça la réalité donc les amis soyons éveillés Nous nous nous yeu continuer li nga patriotisme bi Nengo ko continuer patriotisme c'est une façon de vivre du lo dang koy adopter patriotisme wax ko xam man euh, damay jël témoin encore la population sénégalaise waxon nako waxon nako demb dama koy ma bamtu ko ci wolof demb dama ne wolof ma wax ko ñu kilifa diine aada ak toutes les personnalités du senegal dama leen ne Ousmane Sonko day taal ay xel indiw fi benn gone boo xam ne saaga kilifa moo ko fi indi xool leen saagakat yi yëpp kenn méngoo ci ak Ousmane Sonko amul dama leen ne démb képp ku ma mën a indil saaga bu Ousmane Sonko saaga wala ay nit yoo xam ne danoo gëm Ousmane Sonko ànd ak moom saaga bu nuy saaga indil leen ma parce que Ousmane Sonko jàngalewul saaga yóbbantewul saaga bëggul saaga te du saaga il faut nit ñi xam loolu ku dul saaga nag nooy bëggee saaga saaga dafa neexul sax ci ay nopp saaga neexul ci ay nopp kanta parfois dinañu défendre bu leen fàtte ci diine lislaam la ñu nekk lislaam dafa ne bul tooñ waaye buñ la tooñee boo ko mënee jéggale nga jéggale ko yàlla xeexal la yàlla bindal la tiyaaba waye am nga droit nga xeexal ko sa bop aussi té comme ni ma len ko waxé rek duma yakamtiwuma man sama maam daan na wax euh, euh tontu du forox donc yakamtiwuma ma man damay dajalé duma gawantou rek ben feuy jóge ci kaw garab bi rek daanu ma dal di yëkëti camion ma damay dem bale mbalit mi déedéet man damay bàyyi ba mbalit mi dajalo mbalit mi bu dajalo ba dajalo ba dajalo ba dajalo. ma indi camion ma bale ko yëpp dugal ci bir dem sànni man non lay doxee il faut que ñu jóg xar suñu tànku tubéy ñi nga xam ñom ñoom ñoo ñu bëgg gëm loone ñun dañoo bañ Sénégal dañuy xex Sénégal on est haineux on est nangam on est nangam ay fen la dañoo seddo Sénégal ba pare te bëgguñu ku ko wax dañoo seddo Sénégal té bëgguñu ku ko wax kuy lekk ba ba kuy lekk ba rek di naan ba màndi di jënd li nga bëgg saa boo ko bëggee kooku lan lay dox di iñaan ci senegal laaj leen ko seen bopp demandez-vous la question mbaxane yi ñuy sol sax trois cent euros mënu koo jënd donc laajaat leen seen bopp loolu demandez-vous ces questions lan moo war a tax ñun ñu war a bañ senegal bëgg Sénégal ba gëmewuñu ko moo tax ñu bañ ku ko yàq bàyyil ñu ko loo bëgg noo koy yàqee est-ce que di nga dugg sa biir kër toj sa taabal toj say kaas damm say kuddu damm chaise yi damm lépp sànni kan mooy def loolu amul kenn ci yéen ku koy def ku dugg sa biir kër danga koy bale ba mu set lal sa lal ba mu baax defar sa cuuraay defar sa lépp togg sa lekk bu neex teg ko lekk loolu ngay defaree sa kër donc lan moo tax ñu war a toog bàyyi leen ñu yàq senegal Sénégal fa la sa kër nekk sa kër gu mag gi mooy Sénégal

Macky jéem na koo éliminer doxul menacé nañu doxul wax na fi kàcc kàcc ñu créel ko mafia kàcc kàcc créel ko télé kàcc kàcc kàcc kàcceur ñu ngi fii on est du ñu dem fenn te fu mu làmb day fekk mu naqari il a créé toutes sortes nervi yi ñu ngi fu ne nervi yaa ngi ci réseau yi nervi yaa ngi ci mbedd mi nervi yaa ngi yor micro yi fu ne ils sont là li ma vous veux wax continuez à vous désabonner continuez à vous désabonner continuez à vous désabonner continuez les de désabonner di ngeen gis vous paralyser parce que réseau réseaux patriotes yi ñoo ko jàpp ba mu

je ne tombe pas dans des petits pièges. Je suis un gros porteur. Comment je peux me faire un accident avec une mobilette muy dund man da am fulla am fayda am ngëm-ngëm nañu am fulla am fayda am ngëm-ngëm ñu japp tawo a nous ñu gëm suñu rew, xeexal suñu rew. parce que li au Sénégal tay c'est de la catastrophe on a un président incapable à la tête de notre pays. Il a bafoué toutes nos ressources. Il est en train de saboter notre justice. Macky Sall, moko waxal bopam bala muy ñew. Macky Sall, c'est un nervi. Macky Sall, il a des nervis. dama leen koy tégal ngeen déggal ko seen bop. Li man waxumako c'est Macky Sall lui-même qui vous parle écoutez-le. What? waaw le xew tey ci réew mi mooy lii wolof naan di doon ram ci lii ram bi la Sénégal yëpp xamoon nañ ni Abdoulaye Wade depuis ay weer a ngi mu ngi ci ay pexe lu ne mu ngi koy def yokk na soldo juge yi nag conseil constitutionnel na ay terrain lu ne def na ko ngir ñu jox ko euh, valider ko candidature moom na yoon ak sàpp réew mi moo ko fi ci jongante bi war a am ku waxul waxu nafaq war nga xam ni moom amul droit nekk candidat kon nag bu fekkee conseil bi nga xam ne moo war a nekk le juge des élections xam loolu ba pare teg si tànkam te moom dafay nekk candidat ñun dañuy takk loolu te duñu si ànd tey duñu si ànd ëllëg te takk nañu ko te dañu def suñ kam kàttan ngir loolu du fi amee waaye gis nañu aussi que moom njiitu réew mi taxaw na tembe jël ay matukaayam ngir andi doole jaay ko askan wi conseil bi wax candidature yi immédiatement nañu gis ay Tamba boy ñenn ñi ñu solal leen tenu ñu sànni ay xeer ci place bi nga xam ne mooy obélisque andi fa situation gêne de de de perturbation. au même moment police daal di chargé def ay char à tour ndox ndox mu tàng nit ñi jaxasee manifestation bi. nit ñi gaañ nit ñi kon nag mel na ñu moom ci doole la teg candidature ci doole la teg fas yéene fokkar ci li nga xam ne mooy kàddu askan loolu la ñu ñun duñ ko nangu te it comme moom léegi wan nañu yoon wi démocratie mënul am boo ko waxee tuddee waxtaan ak moom mënul sot adduna bi yëpp wax nañu moom nanguwul kon li ñu defee mooy ñu résister ñi nga xam ne démb barki démb suñu maam yi bi nootee ñëwee ñu nañu jànkandoon bi ak noonu doon leen noot tey jii nag kii noot si ñun la bokk maanaam en tout cas ñoo bokk muy nit ku ñuul comme ñun di Sénégalais moo fas yéene noot Sénégal ngir toog fi toog ci doomam te dañu ne loolu du fi amee. d'accord may ñaawlu ko fii li mu def. ndax waxtu bi may wax ak yow soriw ma place de Louga ñëw nañu si bërëb bi ma ne. police dugg na si kër muy violation de domicile. toj ay oto yoo xamante ne samay oto la. suñu sécurité amoon ak oto yoo xam ne ay xale ay militant ñoo fi nekk. par coup de lañu la ñu tojee vitres yi gaañ leen dóor chauffeur yi.

il a même traité des policiers que dañ solal tenue et c'est pas des policiers propos il a même traité que Ablaye Wade a fait porter des personnes des tenues qui ne sont pas des policiers policier bobo, là leen ko lan moo ko rey qu'est-ce qui a tué ce policier parce que ñoom à un moment donné nervier mi dañu dem ba pour policier bobo def ñaawteef bi ba nit c'est pas un policier après la c'est un policier ngeen yaakaar ne ñun dañu nekk ci état de droit ngeen yaakaar ne ñun dañu nekk ci état boo ay nit yu cohérent je pense qu'on est perdu peine perdu, de réer gars nanu am fulla comme ni ma nanu am fulla am fayda gis bañ fay balaa nga fay yegg da ngay mën a sécuriser sa vote ba pare mënuloo voter nga yaakaar ne yow sa vote bi dañ koy compter nga dem tëddi sa kër di nelaw élection yii dañu war a def lu masta am ci histoire u Sénégal waxuma mag ñi ñi nga xam ne ndeysaan amatuñu doole mais les jeunes ñëpp dañoo war a voter taxaw tembe xaar résultat yi ci seen bureau de vote kenn warta bouger ça c'est les patriotes Qui dem yóbbaale sa sandwich ak sa ndokh. wala balaa ngay dem nga lekk ñun nous wote ñu xaar résultats bu mu ci sa bureau de vote résultats parce que li ñu bëgg manta nek. li ñu bëgg ci Sénégal manta nek. Macky Sall li muy jaay ci Sénégal il ne respecte déjà pas la police parce que police sax bayou len pour ñu def sen liguey normal police rek Macky Sall bàyyiwu leen ñu def sen liguey normal police du gendarmerie du ben institution sénégalaise bo xamné ne mi ngi dox dans des normes Moi, toujours li ñu leen di wax ñu séparation des pouvoirs tant que pouvoir yi séparé wuñu suñu institution yi Macky Sall daf leen di ñàkkal fulla ñàkkal leen fayda ñàkkal len doole Macky Sall japp justice Macky Sall japp assemblée nationale fan la Sénégal jëm ñun kan lañuy joggé ci boumu njaam ngeen yaakaar ne ngeen yaakaar ne Macky est cette personne qui va négocier avec les Sénégalais et qui va respecter vos droits lolu laaj len ko ko ci l'école yi Macky rek ngay gis ku tabax stade bu 100 milliards te ci ex stade bi abri provisoire moo fa ne mooy amaana sax bu dugaloon cinquante millions ci école bobu mu bax jam je vois les photos dem len ci page aro Arona Niang na nga dem stade bi Macky Sall tabax jam juste à côté il y a des abris provisoires xam ngeen luy abri provisoire je pense ni jang ñoko xam mais ñi jàngul aussi war ngeen xam léegi mooy école sàkket mooy école yooyu nga xam ne Macky sàll dafa ne xaaral ma defandi ko fii ba incha allahu rabbi bu ma jëlee euh, bu ma paree ma jël xaalis koppar yu takku ma defar ko école mur tabax ko ba mu baax ay abri provisoire ñun ci loolu la ñuy dox tey il faut il le faut kii wax porte à porte waaw fa fa fàllu ñaw faltu ñaw wala fallu ñaw mais c'est c'est ça la réalité dañu war a def ay porta à porte war a génn di dem def porta à di génn xam nga lan moo leen gën a naqari ci ñun li ñuy def mooy li ñuy leeral ñun dañuy génn di leeral imaginel Macky Sall président boo xam ne dafa juddu ci ndóol màggee ci ndóol yaroo ci ndóol ñun mënuñu ko wañi nak ndax yalla moy joxe yalla moy xagn il faut doomu aadama yi xam lolu bu ñuy wax ñun c'est pas pour ne wala Macky Sall yalla daf ko pauvre lo non moy xam nga nit ci sa way ngay dépendre pour mëna def lu baax ci kanam xam nga man tay na yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla sutural arñu man tay mënon nga ne ah bu joxé Ousmane 100 milliards man xam naa cent milliards laataa may toll fii xam naa luy cent milliards donc man bu ma jëlee cent milliards taal ko donc loolu man nga cee am mbetteel te duma ko def man nga am mbetteel man ah waa ji tamit am na nu mu mel ah jël xaalis bi yëpp taal ko parce que dama xam xaalis mais Macky Sall dafa juddu ci ndóol màgg ci ndóol xam pauvreté ni mu mettee am ay doomu aadama yu ci nekk am ay doomu aadama yu koy dund kooku warta bàyyi sénégalais di dund yenn dundi nii ndax moom daf ci jaar xam na ni mu méttee Macky Sall dem na ba ne bourse biñ ko daan jox université moom daf ko daan séddoo ak yaayam nous on n'a pas eu chance man laaj ñun li ñu toog nii Amérique sax di liggéey suñu yaay yi chaque fin du mois lu mu tuuti tuuti ñu jàpp benn cinq cent mille benn cinq cent mille lu mu tuuti tuuti je lui ai dit 500 000. Donc, ça n'a rien à voir avec bourse. Moi, je ne suis pas le seul enfant de ma maman qui vit aux États-Unis. Ça m'a frère, ça m'a sœur, on a, on a une grande famille partout dans le monde. mais tay ku mel ni Macky Sall bu Sénégal gi amul dara lo xam ne mën na koo njariñ boppam kooku warta jël li ñëpp moom li askan bi yëpp moom mu moomal ko boppam li ñuy ne moili. xamul une personne qui gère un pays ñu jox la alal jox la budget jox la ay milliards yu bari ay milliards yu bari ñu jox la ko yow nga jël xaliss bobu yëpp nga luubal ko il faut que doomu adamay ñu bàyyi xel il faut que doomu adamay ñu bàyyi xel il faut que ñu bàyyi lolu xel il faut nous yeewu il faut nous amener nous combat c'est un combat patriotique et sincère combat bi ñuy xeex biñ ci que suñu tànk ou nous, teggiwuñu nous gauche nous droite nous right nous left nous ci ci ginnaw. Ben, durée bi rek la il faut nous car. xeex mooy libérer seule la lutte libère xam nga boo nee xeex new ñu lañu jël nga jël ay jaasi nga jël paaka déedéet xeexal sa ak ak sa yelleef doomu aadama yi nañuy bañ bul dem ñu lay bañ a jox sa carte nga ne ok je vais aller dormir chez moi ça va mais nañu créer ay marche di dem ci commissariat yi di leen forcer ñu jox ñu suñu carte d'identité mais on est des citoyens sénégalais on a droit xoolal Amérique bi ñu reyee George Floyd George Floyd bi ñu ko benn tu sais que tout ce qui se passe aux États-Unis a été embuscadé banque ça sax nit été fait. dem gouvernement américain bi dañ ko paralysé dans une journée président bi été dit di le président a été doomu pour seddal xel pour dalal Khali. Daniel, dañoo parce que si nous sommes forcé avec la police avec la national guard dañu te dañu dal seen kaw ñu des choses mais peuple bi le peuple sénégalais est la force ñun ne vous en faites pas de nous bëgguma ngeen toog sen xalaat nekk ci ñun bàyyi concentré vraiment le task at hand c'est pas Tunkara c'est pas Malick c'est pas Diallo c'est pas Demba non le combat c'est pour le Sénégal leneen luñ leen dugal ay diversion leneen luñ leen ma a dugal ay diversion la nañu concentré wu bu leen ma yërëm jarumaa yërëm bu leen ma yërëm ñaanal leen ma yàlla mu continuer maa may wér gu yaram bu ma yërëm jaruma yërëm bëgguma ku ma yërëm bu leen fàtte làmmiñ laa yor ak loxo ak tànk man naa protéger sama bopp je peux bien me défendre Lo gis rek waxtoom moy jot comme nima len ko waxe. Ben feuille camion ba mu poubelle lay bale Buma ma ko balee ma dougal ko ci camion je ne vais pas balayer une feuille je ramasse une feuille je la jette dans la poubelle et je continue Lolou moy wax ci benn feuille bu woddee ci garab da ngay for feuille bi sànni ko ci poubelle continuer do jël bale leum jël camion indi na damay bale pour feesal camion ak benn feuille c'est pas possible def len dank rek def len dank rek dank dank inshallah je vous promets di ngène kontaan yag ngène content nak waye je vous promets né di ngène gëna a waye fi mu toll ni dafa am ben ben xex bu ñuy et ce combat on ne doit pas être diverti buñu dara divertir buñu dara wacce ci suñu trajectoire ma ngi djegalu nak bu baakha baakha baakha baakha baakha baax ndax xamna suñu xarit yi suñu am di jamm yi ñi ñu bëgg vraiment yenn say seen xol yi metti lool way muñ leen ko c'est tout dans le combat ce combat on va tout voir gisaguñu dara on va tout voir exemple bay ñas lay jël ndeysaan euh, nee nañu am na nit ñi buñ ko daan sosal di ñëw di sos di sos di sos nee na di ngeen dem ba dégg sax ñu ne leen bàyyi ëmb na di ngeen dégg sax ñu ne leen wasin na waaye duñ leen woon doom comme on nous l'a fait dans le cas déjà Adji Sarr xam nga Adji Sarr ëmboon na fi léegi comme Adji Sarr mënta wasin comme Adji Sarr masta ëmb comme ci seen tappale yi seen fen yi moo leer Adji Sarr mënta wasin léegi di ngeen dégg ñu créer leneen léegi ñu indi leneen xam nga temps yi dafa dégg defe naa bu ma juumul temps yi ñu ngi ci yeneen pare nañu ci ay affaire wasin moom ak ay affaire euh, maanaam siif pare nañ ci loolu génn nañ ci yooyu génn nañu ci ay mbiru siif ak ay mbiru wasin pare nañu ci wax yooyu léegi defe naa ñu ngi wut yeneen est-ce que léegi waruñu sër bu taq wala dara ah defe naa peut-être xëy na xëy na aussi xëy na xëy na xëy na damay wax rek xëy na sër bu weex bi la ñuy xaar xam nga xëy na Adji Sarr dañ koo jébbale xëy na sër bu weex bi la ñuy xaar bu tax deret maa ngi jéggalu xëy na dañ koo jébbale sër bu weex bi la ñuy xaar waaye ils n'ont rien compris parce que banditisme bii ngeen jël ak yoonu tappale bii ngeen jël yéen ñi ànd ak Macky ak yéen ñi nga xam ne yéen a jóg pour yàq réew mi on fera face boo leen yaakaaree ne da ngeen a intimider walla dangeen xawma da ngeen am xam-xam wala da ngeen préparer guerre wallahi préparez-vous pour le grand combat le grand combat n'est pas encore arrivé xeex bu mag bi jotagut billahi xeex bu mag bi jotagut te benen affaire gaay yi ñi intelligent am xel lol sama jabar awa ndaw la tudd amul ben aji bu ci rax awa ndaw nonu la tudd te bis bu ne ngeen dégg ma fi ndaysan mané ñaanal leen soxna su soxna su baax ndeysaan comme ni ma koy waxee sénégalais je lui créé une société d'assaisonnement xam nga sénégalais euh, suñu xam-xam moo soriwul ci yu bari awandaw société bi ma ko créel société d'assaisonnement la tudd Eva's Taste dinaa def sax ba def loo xam ne mësuma koo bëgg parce que mësuma bëgg dajale business ak plaisir mais dinaa jël société awandaw bi publier leen ko ci one million marché bi defal ko nag publicité bu grave déjà attanul ay client macha allah waaye dama koy bañ a dugalaat fii mu tas nag àdduna bi yëpp jot ci mais société d'assaisonnement la am te man maa ko koy bousculer ba mu kawe ndax boo takkee jabar mu goreel sëyal la ñaar fukki at yoo xam ne masul yëkkati bant awa ndaw dama ko takk ñaar fukki at ma yokk ci wala déedéet bu ma yokk loolu c'est personnel bi ma koy takk naa yemale rek ci xale bu ndaw lañ ma jox ma satisfaire ci lool mu sëyal ma ñaar fukki at dans quelque jour mu am ñaar fukki at ak benn ba ma ba may sëy ak moom ak léegi ba ma dalee sëy ak moom ñaar fukki at ak benn la ñu def mu sëyal ma sëy bu jéggi dayoo jox ma cër man ci sama bëgg-bëgg li mu gën a bëgg ci àdduna bi muy togg li mu gën a man muy togg ma ne ko léegi xam nga looy def créer société assaisonnement pour nga yombalal yeneen jigéen yi tamit nu ñu mënee togg mu créer société d'assaisonnement lépp lay defaran ah. xam nga dof yi ñoom concentré wu nañu ci nokkos wala bañ a nokkas waaye lépp lay defar te dinaa ko ko publicitéel dinaa ko ko éparpiller dinaa fexe àdduna bi yëpp jot ci yéen ñi ne Sénégal sax boo leen yónnee seeni adresse di ngeen ci jot ñëpp nañ ci jot mu tas mu law maa ko koy tasal ba mu tasaaroo yasar mais est-ce que vous vous rendez mi ngi mel ni ngay jiiñ nit loo xam ne il est fier nga ne nit de jullit bu baax la macha allah alhamdulilahi rabbil alamin boo ma ne woon boo woon ah diw de reykatu nit la rey na fukki ak juróom wala déet def na lale bu boobaa dinaa am lu ma naqari waaye cette femme elle est brave elle est vraiment exceptionnelle elle est vraiment extraordinaire am cër ci man donc man maa ko tey incha allahu rabbi indil ko lu baax tegal ko ko te dinaa ko ko publicitéel yëkkatil ko ko ba mu tas yasar légalement mais je le ferai pour tous les sénégalais lu may defal jàmbur ñi pourquoi du ma ko defal awandam ma koy defal ay jàmbur ma koy defal ay jàmbur je le fais pour man ñima xam dafa na barki Dembo ndjay rek kan la fi nekkon du cham cham Babel Demba suñu patriote ba cham, le grand tailleur suñu patriote bi barki Dembo mom, lañ fi publier tas len ko dem len seti ko jënd ci marchandise nous on est des patriotes te patriotisme ci kër lay tambali patriotisme ci kër lay tambali ci kër ndax ñun suñu patriotisme xam nga ci lu muy tambali ñu jangal suñuy dom sama ñaari taaw yi ñu ngi université macha allah duma dem ci ay détails yu sori sama doom ñetteelu doom mi ngi liggéeyal boppam di jàng l'école ndeysaan dinaa la wax lu extraordinaire euh, te dinaa ko wax dinaa ko cof catuwuma ko nag waaye dinaa ko cofaale du ma wane photom waaye dinaa ko cofaale ngeen ñaanal ko xam nga tey ci suba imagine pap bu tëdd ci kaw lalam di nan café xawma lu normal la xawma lu normalul moi je suis un communicateur je communique tout ma teud sama kaw lal di féexlu di nan sama café suba tel wéeru booba nit ñang may yonne ay bannière ñi ñu ngi def man ma ngi bind ma ngi ci sama liggéey mune euh ndaysan euh mune yo <laughs> <laughs> ba Baaji Dia mu ne yow doo takk ñaarel eh Baaji Dia loolu diggéewu ma ko de diggaalewu ma ko ken <laughs> léegi nag yow yaa ngi bëgg a yëngal sama sëy parce que boo waxee lii man ma démentir fii ma dugg ci biir kër gi ñu jàpp ma xoñ ma ci vois sama ne déjà patriotes yi nag yenn saa yi ngeen bëgg a yëngal këru jàmbur yi how about this du ma tontu góor yu baax yëpp ci àdduna bi nekkuñu ci ay tontonte ay ñaareel wala nangam xam naa daal yàllaa ñu sakk yàlla comme moom moo ñu sakk comme moom moo ñu fi bàyyi lu jot yomb n'est-ce voilà yàlla moo ñu fi sakk bàyyi ñu fi bu yalla ne dina tak dina tak bu yalla ne duma tak duma tak nagn ko baye ci loxo yalla du noonu nanu baye lepp ci loxo yalla mais li am importance awandaw daf ma jural ay dom yu barkeel mënuma wax lepp ci réseau bi ma ngi jéggalu ndax li ma bëggoon wax sax defena pour des raisons euh, secrètes de la famille ma bàyyi nonu waye xam ne ay domam ñu ngi sakku samay ñaan imaginel j'ai 49 ans macha allah nga am ñetti doom ñaari nga am ñetti doom yoo xam ne ñoom ñëpp responsable nañu ñaari yaa ngi université seen rakk bi sax moom mi ngi liggéey liggéey mi ngi jàng mi ngi jàng di liggéey jàng wàcc liggéey fekk la nga tëdd sa kaw lal ne la papa am jox ay koppar yu takku ne damaa bëgg nga ñaanal extraordinaire doom bu am 16 ans fekk la nga tëdd muy liggéey liggéeyam. ci Amérique mi ah vraiment nañu nañu nañu nañu lu dal te am te nek ay patriote li ci dess yalla dina ko matali xolal xolal Ibrahima Ndiaye mi Tunkara ya ragal Tunkara ana Tunkara ragal wala Tunkara ñame a ah, yi ngeen bëgg indi fi yeb du débat bi ah li ngeen bëgg duggal dugal ci débat bi yeb du débat bi en tout cas en tout cas Adamo Adamo sama waa ji Adamo tamit ñu ngi koy félicité parce que Adamo nee dafa doon xaar pour takki jabar nee na moom daal Miss Sénégal la doon xaar nee na Miss Sénégal bi moom da koy daal di jël baaxee ko Adamo moom bëgg na lu baax de Adamo nee na Miss Sénégal bi moom it moom lay baaxee boppam moom it kooku lay jël takk ko macha allah Adamo yow it jëlal boobu may nañ la ko ngeen sëy ak jàmm ak salaam ngeen am ci njaboot ju barkeel ah en tout cas li importance je pense que wax nañu ko ñu continuer ci suñu ligne patriotique bi te buñ ko wàcc na ñu bàyyi ñiy saaga saaga nañu bàyyi ñiy xaste xaste nañu bàyyi ñiy wax lu bon wax lu bon ñun ñu continuer suñu trajectoire dañu bëgg a jël yépp taché ñu ko takkal ñu ko comme bracelet ne takk leen duñ ko takk ñun kenn dàqu ñoo wax kenn dàq kenn gënuñoo mën a défendre kenn gënuñoo mën a défendre amul benn doomu aadama bu ñu mën a défendre mu ne <laughs> mu ne c'est mal <laughs> voilà donc en tout cas euh, nañu nous rek nañu Nous gorgons. nous mu ne bu nous tontu non non non non nous gorgons. rek nous gorgons. Euh, vraiment te xel euh, <laughs> mu ne bul tontu ci ñaareel bi de Cyril loolu ci salon bi ngay fanaan <laughs> man man eh leeral naa man man déglewu ma de man kan moo ma fi dégg ma ne man damay takk ñaareel wala yooyu man ku ma dégg man waxuma fi dara moi je n'ai rien dit yo oh. man waxuma dara woo oh. dama xam ne eh, ngeen bëgg maa indi ci problème mu waaja ak jëndu mbaam ma borom kër ga ak soxnaam ñoom fase wante nañ te mbaam ma ñëwul ci kër ga mu ne mbaam ma bu ma jëndee mbaam fii laa koy yeew soxna si ne doo ko fi yeew ñoom daal dóorante nañu te mbaam mi kenn masu koo jënd donc lu tax ngeen bëgg maa indil ci ay problème u ñaareel ah ngeen may wala da nga takk doo takk yaa wax waxoo vraiment bàyyi leen noonu rek vraiment ah <laughs> Omar Thiam <laughs> Omar Thiam boobu du ma ko Omar Cham góor ñi bari nañu yemuñu ñu duma tontu lolu duma ko tontu tay duma ko tontu ëlëk en tout cas li am solo gaay yi bëgg na toujours bu ñuy waxtaan rek ñu stress free té ñu indi walé aussi ci biir waxtaan bi ay waxtaan yo xamné ñun ñëpp dañ koy ma sha allah donc euh, vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sante di bëgg aussi comme ni ma leen ko waxee ñu tagal leen euh, suñu musique bu neex ba damay doxanteeg yéen yóbbu leen ba ci Apple a ah, ah, Apple <laughs> Apple ba ah Apple Store dama war a dem jëndi ay mbir yu ndaw ndawaan foofu comme saa sama xastekat yi seen xol yi sa suñu suñu gars yi seen xol yi gën a metti rek parce que il faut savoir que déjà nous habitons dañu bokk ci àdduna bu freedom maanaam dañu dëkk ci dëkk boo xam ne it's a it's a free country euh, comme ni ko gars yi di waxee toujours c'est un pays libre maam dëkk la boo xam ne it's a free country xaar leen bu leen ma may leen ma tuuti rek ma dégg. ok donc gars yi comme ni ma leen ko waxee ma tegal leen sama gaay yi ma tegal leen um, sama copine. ngeen déglu ko en attendant bi moy ci bus vous voyez à tous les respects du monde auto ngi taxaw direction bale bi direction bus bi départ xalé bi dem manam institution yi dañ ko police ci dëkk bi fi bu joggé bu président de la république sax wala député wala nangam fi tok na gis fi député wala ay ministre yoo xam ne police mooy dem directement seen kër yeewu leen ba ñu dëgër ne leen tu es arrêté et tu n'as rien à dire voilà non ça c'est notre Coco nag nañu xam loolu Coco ñun ñoo ko moom voilà Coco daal ñoo ko moom kii suñu Coco la duñ ko délégation bàyyi ma yow it nag. gars yi may leen ma une minute ma teg sama navigation bii ma sonal fu ma jàdd mu ne ma redirect fu ma jàdd mu ne ma redirect opération reewande la nag fi mu ne nii ci Apple Store bi laay dem gàtte sama bopp dem tëddi nelaw gàtte waale xale yi ah waaye gars yi moom sa waay ah puus mu tàkk xam nga puus mu tàkk moom ah voilà e donc il faut fi mu ne nii ñu daal di dem féexali xol yi tuuti va faire quelques courses là voilà hein. hein, c'est ça gars yi moom xam nga mooy loolu waaw seen lam comme ni ma leen ko doon waxee bii tamit beneen étape la maanaam beneen étape d'éducation là du du du poukéré nak mais dañ leen di won rek né bo leen xéxalé sen bop amana amana bu mu ndiam bi mom dana dok waaye bu ñu xeexalee suñu bop amna yu bari yo xamné dang koy mëna a defal sa bop da ngay mëna doxantu dem ci dëkk bi jënd li nga bëgg wax li nga bëgg def li nga bëgg té kenn du la sonal comprendre c'est ça le problème mais ñun comme on est mal civilisé Aïe aïe aïe mais gars comme ni l'avons une concentration totale on n'a plus droit à l'erreur amatuñu droit pour def ay erreur on n'a plus droit à l'erreur et c'est important dañu le droit à l'erreur parce que Ce qui nous ba fait, c'est que nangu dara ça c'est important Ce qui nous ba fait, si fi ñu avons fait Hello. Yeah, so I see this new Dre, Dre Beats The Dre, whatever, earpad Pro something. Uh-huh. You have them? I'm going to go to the table over there. one, the fifth table. Hip to it. Hi. Yeah, there's these new headphones I see you have. I mean, uh, earphones. Oh, the headphones? No, I had the ear pads. They they beats. They're like beats. Yes. So uh, I'm beats on the wall right here, right top left. Not those. These are pros. They they just came out. I think. Let me see. It has a hook. You see, these don't have no hook, right? So there's. So there you go. Yeah, these ones. Okay. Is that the one? Yeah, these are the very new ones, right? Which color Deep Fit Pro. Uh, I think uh, give me the pink and uh, bi yi moo génn bees defe naa c'est I ah ma jëndal B, madam, man my jënd bi bi I think I can do these ones and these I can buy too these two. So which ones? So the pink. And the pink. And uh, black this class, right? Yes. Okay, gotcha. Uh, di these are these are nice yi yu bees la ah these beige. So one black and one purple. Yes, one black and one pink. Anything else here? Do you have any lighting for? I do a lot of social media. Mm -hmm. So a lighting, like some nice lighting. We do have, uh, in terms of lighting, uh, right here. I have that. Okay. I have these already. That's the only one you have? Yes, for the most And how many of these are in there? There's only one. Yeah, I have that. I needed something more. Uh, something. So essentially, you just place it down, connect it in, and you're able to wirelessly uh, control control it. Oh, okay. Oh, you, but it gotta be stay plugged in. I believe so, yeah. So it has a, uh, it's included. You just have to plug it in to any solar. Uh, no, I want something that I could charge, like, and I could go work wirelessly. I'm not sure we have anything that fits wireless uh, the exact description. Your best and did, did they upgraded these amber cups? Which one? These, did they upgrade them or is the old ones? I'm not too sure. Uh, these are third party products. I wouldn't be able Yeah, because I had them. I had them. But uh, it's when they first came out, but the battery died so fast. Yeah. What about the Series 6? Anything available yet? The Series 6? The watch. Oh, so we have a newer generation, which is the Series 7, which recently so, came out. I, believe. I know. Oh, so, okay, so I have 6. Mm-hmm. Then the 7 is what I'm fighting. Yeah. Do you have it? Yes. Thank you so much. Do you have anything available? Yep, I can definitely check you. Give me a second. Uh-huh. Now, for the C7, would you prefer one with cellular or just GPS? You have one? Yeah. GPS or cellular? Uh, GPS. GPS. Okay, so 45 or 41 millimeter? The biggest. The biggest? For the biggest, we only have it in Starlight Aluminum, which is that's good. Well, that's a short picture, but give me a second. It's essentially like. It's, it's what? Aluminum? Mm-hmm. But it's, uh, what is it, GPS? Yeah, GPS. GPS. Yeah, that works. Guy, gars yi dañuy xam nga rek comme gars yi moom tam tam mbokk mag yi moom tam ñu ne nun dañuy yeluwaan léegi dañuy xool yellow one. Well, yeluwaan wala nun yeluwaanunu xam nga yenn saa yi nag nga nga nga won leen sa bopp tuuti rek nga xam loo leen nekk xam nga nun kuy dóoree man kuy saaga ñun dañu mën a xeex dañuy xeex te dañu am moins xeex nous on a les moins pour nous battre ñun xeexuñu te amuñu moins xam nga xeex boo koy bëgg da ngay fekk nga ma am moins pour xeex waxuma ñëpp nag je ne parle pas des patriotes xam nga les mais ñun ñun par exemple quand on se bat on a les moins comme ñun dañuy communiquer xam nga dafa jafe parce que kuy communiqué boo amul moyen boo moytuwul rek ñu jënd sa ngor lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw nga commencé nag di pété ay câble mais comme ñun on a les moyens te amuñu kenn koo xam ne am nañu pour rendre le compte et je pense que ça c'est important ñu koy xamalante loolu baax na ko dégg nga euh, Tunkara yaa féroce <laughs> mais ana lu def lu féroce <laughs> yes, let me see these. So these are the beets. Nice. Ah, beets ina mo mom kina mo ma li kina. Lima you best. That's actually uh, the color is purple. I didn't. Uh, it's actually not pink. Okay, purple yeah. Bibu madam, bibu man. Marshall. mom, the Masha. I come up with ko gawarirel like. I'm still currently waiting for uh, Apple Watch. Okay. Is there anything else I can answer? Yeah, I was thinking. So, what about the? What's the newest Mac you have that has a better Retina display? Uh, it, would probably be the Pro. Does the, the size matter? Or, no. Okay, so the newest Mac has to be the newest MacBooks, which just came out. They have the M1 Pro chips. Which, which one? Is which is the new Mac? Uh, all 4 mm -hmm. Okay. So this is what that is hell bii daf naa yi loo leen ci xam bii daf na de wow bii neex na waaw bii baax na yeah let me see this one what colors they come in silver or space gray this one, silver space gray? Mm -hmm. So that's silver. This is space gray. So these are. So either one, either one, silver or space gray. Okay. Uh, which size? So we have uh, 16, 14, and 13. 15? No, no 15. Only 16, 14, or 13. So 13 is right there. That's the 16, and I believe this might be the. Oh, this is 14. Okay. So maybe I can do a 14 then, huh? loolaa xam te bi bii tamit war naa mën a bokk ci reewande bi de ah parce que yenn saa yi nga reewal sa bopp xam nga yenn saa yi booy doxantu nga boole ci tuuti reewande dafa baax ah bii defe naa bii baax na de ah waaw ah, bii baax na. Do you know which one you prefer? I was thinking uh, maybe the 14. 14? Yeah. This Is going to be for business or personal use? Personally, Okay, unfortunately, I believe we are completely sold out of the 14 inch and the 16. We have a couple 13s available if you are still interested. 13? Mm-hmm, the 13 inch. Uh, tres, tres plus, like more ama. I want the 16, it says. Aysatu Njaay <laughs> so <sighs> the 16 maybe i could try the 13 hmm? so, 13, i can see the 13 so what's this which one that's the apple watch with the band why do they have the band separate now uh, they come separately mm-hmm, so you're able to customize which band that you prefer based on the watch so okay the standard band that comes with it so i don't want that so you have any other bands yes okay what color is the watch this is Starlight. Is? Starlight. What's Starlight? Uh, it's essentially. That's the only color you have available? Mm, for the Series okay. 7, yes. Okay. 45 millimeter, this is the only version. Okay. If you were looking for a different size, which we don't have in store, you could always order it online. I wouldn't be able to give you a direct estimate date. It might take around one month. well, okay, so let me get, let me take that. Okay. And for the MacBook Pro, uh, are you still interested in 13 inch or no? Uh, I could do a 13. Okay. And you said space square or silver? Huh? Space square or silver? I could do. I could do um, maybe a space gray. Space gray? Yeah. And does memory matter for the internal storage? Uh, what, which two, one do you have? Starting at 256. I could do a 256. 512. No, I'll do a 256. Now, do you plan on adding AppleCare Plus to any of your devices today or no? Huh? Do you plan on adding AppleCare Plus to any of your devices today? total comes out to 2306 and 20 cents. Okay. waaw ah, léegi saagakat saagakat yi soo leen paree dee leen joxe yu mel nii aussi ah dee leen joxe ka yu mel nii dégg nga you're gonna prendre ici over mm-hmm. ok saagakat yi soo leen paree dee leen def yi ah? physical or digital? Uh, you can give me a physical and digital both. First name? O U S M A N E. M A N E? Yeah. T O U N K A R A. N K A R A. Yeah. E L H A. The email E L H A. E L H A. D J I 1973 at yahoo.com. Confirm? Yeah. Do you want a back for everything? Please. You should uh-huh. have received the uh, digital receipt. Yeah, and give me the printout too. There you go. And with our extended holiday policy return, you have until January 8th if you'd like to return. Okay. Give me a second, my guy. Apple na am nañu ni ñu mel ah benn fi benn trois presque Two thousand five hundred euros ah? Apple am getting noo leen mel ah? ne apul ah, lu len jot saay ha ah, pour wax goné ana makki ak mbokami pour ne len rek ñun ndank rek am nañu moyen buñ len xexé xam len lool ñun am nañu katan ak man-man bi pour xeex leen te danañ ko def ba mu saf sat pour ngeen ko xam ne lépp thank you so much have a good day Now, para nanu bala ñuy ne mbuus mi tamit yóbbaale wuñu suñu gars yi moom tam ñu ne yii dafa doon dosé jënd ko jënd ko dafay fen lépp a ngi fii de mbuus baa ngi balaa ñuy ne yii dafa doon dosé day fen day fen yóbbu ko mbuus maa ngi de amul ay benn njuuj njaaj ci biir fii mbuus mi fii moom da ngay fay ñu jox la sa mbuus nga dem ndànk nag so mënut a jënd mom mëno fee ñëw di abal leen maag lebal leen mag yonne leen ma yoy amul fi fi da ngay ñëw nga fay man ta fay nga bayyi ñom duñ la neexal duñ la saga xam nga li li yëpp ci liberté la bok manam li liberté la suñu dëkk yi da ngay ñëw nga jënd ndank nga def li ngay def kenn du la kenn du la kenn du la reste Somebody say you forgot my ear pads. When did I forget your ear pads? Huh? I didn't forget your ear pad. <laughs> kon liñ lay wax rek du nu saaga kenn du nu manqué respect ken da ngay ñew ndank legi da dañuy doxantu ji ba ci jëndu kay café bi xam nga li liberté la manam li doomu adama dara gënu ko neex c'est une liberté liberté la li liberté la ah liberté liberté totale da ngay am liberté lii liberté la bu du buumu njaam ah mu ne <laughs> nda yaaya si c'est jamais fii awa ndaw rek <laughs> bàyyi leen koppal ba <laughs> mu ne bro di nga tax sàcc yi sàcc xaalisu réew mi ñëw fa def <laughs> sàcc yi xam nga fii fii sàcc du fi naanee ñeex fii il faut gars yi nga liggéey sa xaalis nga jënd li nga bëgg te nga bañ a fontoo nit ñi loolu moo fi am fii tappalekat du fi dox xam nga boo leen gisee lu bari ñun comme ni ma gisee lu bari safuñu c'est parce que waxu wolof la moi je ne suis pas wolof mais nee nañu kii dóoree man koy saaga xam nga nit mën naa toog yor làmmiñam moom loolu rek la am ngànnaayoo ko yaakaar ne dafa am ku mu intimider et ils n'ont rien compris xam nga aduna non lay demee mais tout ce qui se passe dans cette vie c'est que nga am liberté dund moko gëna neex nga am liberté avoir une liberté de pouvoir mener sa vie dara gënu ko neex ci aduna bi te Sénégal tant que xeexuñu boumu ndiam momu duñu man lool toute cette jeunesse va continuer à souffrir à dépendre d'un bandit. Un bandit qui peut tout s'acheter lui. Parce qu'il a volé l'argent du pays. Macky Sall mën na jëndal boppam lépp lu nekk ci Sénégal. illégalement nak. mais amu ci gatché. amu ci gatché. Amna kuy wax Eva Coly Seck mu ne waxal ci Kouya Goulard. Kouya Goulard, du ma wax ci mom. parce que comme ni ma leen ko waxé rek. nañu eh la ceinture waaw ceinture bi moom génnaguma génnaguma shopping centre bi mais excellente idée merci mais comme ni ma leen koy waxee rek lu bari dañ ñu koy tere na parce que dañu am ay kilifa yu bari dañu koy tere ndax boo leen fàttalikoo ni ma daan live avant dama leen daan yóbbaale fépp di waxtaan ak yéen di yaatal waxtaan bi di leen yóbbaale di def samay achat yépp di leen yóbbaale di waxtaan ak yéen nag mu yaatu mais dañu dem ba un moment donné.

mais dañuy bëgg rek di def lepp lu ñuy def ñu def ko ndank dama bëgg ngeen and ak seen sago ngeen and ak seen xel ngeen xam ne euh, dañoo wara xex té ci biir xex bobu dinañu dajé ay galankor yu bare bare bare bare bare bare bare bare dinañu dajé ay nit yu bare yo xamne vraiment sen but tout simplement c'est de gâter ce combat mais ñu ko nangu dañuy continuer on n'a qu'à continuer sur notre trajectoire dinaa ñëwaat nag dinaa ñëwaat bu leen yàkkamti bii tey waxtaan la rek comme ni ma leen ko waxee pour ñu gën a yaatal mais le jour viendra au jourer le temps ma toog ma toog benn benn comme ni ma leen koy defalee toujours ma toog dinañu dinañu ñëw toujours ci lu ñu gis rek dañ koy doxal ci dëgg Let me definitely Hi, how are you? Um, give me a black, a red, a black, a red eye, please. Oh, I'm sorry, what? A red eye. Yes. Yes. Huh? A venti one. The main. I can take two. Brewer itself. I think black yeah, two is a black eye. But being that it's a venti, you know, it's a little. Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah. Uh? Yes. It don't matter. You did the two shot already, no? Is it? What did you just did? Two, no? I did two. Yeah, that's good. Yeah. Anything else? That's it. All right. voilà gars yi comme comme li ma doon wax rek continuer ci li nga xam ne moom laa doon wax gaa yaa ngi ruube fii di dugal fii ay waxu yeneen affaire du ma tontu kii de kii bind fii xaw ma aasi li ko xaw ma kooku du ci tontu de <laughs> bàyyi leen seen affaire yi ngeen di bind bëgg a yëngal sama kër gi man sama kër gi il faut mu nooy nepp ñu may toggal supp yeel bu ma demee reer ci ba baax ah nu kaanil ma ko tuuti nga xam ne baat bi day day daal di leer ngeen bëgg a indi fii ay problème di fi wax ay yeneen wax bàyyi leen wax yooyu góor eh, góorgóorlu ci komba bi yàlla nu yàlla may jàmm ci combat bii ñu nekk nu góorgóorlu ci ah nu ci combat bi te ci combat bi jàpp ci komba bi tewu bàyyi ah góorgóorlu ci combat bi rek nañu góorgóorlu góorgóorlu ci komba bi ndànk jàpp tewu bàyyi waaye bëgg dugg ci yeneen détail ah en tout cas I think I can hold on. Let me ask. Uh, let me ask. xaaral wo, sama sama patron laaj ndax bëgg na moom it ci <laughs> madame coffee for you. What do you want? Okay. Uh, How many? I'm bouncing back and forth on bars. Huh? You don't need it. I don't need it. Huh? My who? <laughs> okay. No, no, uh, okay, hold on. gars yi jéggal leen ma de so bien vrai que garder naa distance waaye dama fàtte jël sama masque donné ah yàlla baal leen ma baal leen ma gars yi dama fàtte jël sama masque jéggal leen ma bàlleen ma ma ma c'est que yenn euh, euh, établissement euh, obligation yes so I can have uh, another red eye with uh, four brown sugars please same time huh yes please Huh? Anything else? Yeah. Omar, <laughs> Omar chab, Omar chab bàyyi India, ay problem. <laughs> Sonko presidala, la xam nga mom. lumu daanaka moom du non man nag duma président je suis un citoyen lambda citoyen lambda bu sénégalais là hein ça c'est la norme lii ñuy def nii c'est la norme de notre vie ñu ne à 18 patriotes yi léegi si 18, huit madame Tunkara ngeen di <laughs> Omar Mercedes Omar Mercedes yow yow yow xam nga yow xam nga lépp <laughs> ne leen <laughs> Omar Mercedes moom xam na léegi mu ne ci dix huitu madame tu madame Tunkara la ñuy dugg léegi <laughs> Omar Omar waxal de non non non Eva Eva Kolisek nee na doo wax ci non non non pas pour le moment xam comme li ma leen ko wax rek euh, loo gis rek temps bi dina jot may leen ma quelques jours rek maa ngi préparé lu rëy rëy rëy rëy pour ces pour ces malfaiteurs la maa ngi leen di préparer lu rëy yéen ne leen takk rek ngeen seetaan non I already ordered euh, jour boobu bu jotee daanaka dafa mel ni dama leen di tëggal sabar di leen woo incha allah bu soobee yàlla ne vous en faites pas that's with the thank you ah. voilà comme ni ma len ko waxee rek nañu mayante quelques jours ma ngi préparer lu reuy te inshallah allah bu ñëwé ñëpp ñu ci wara am seen wàll dinañ ko am ñëpp ku ne di nga jël sa wàll xam ngeen ñun niñ koy bu guñu raté on ne va pas raté comme ni ma len koy wax on ne balay pas une feuille camion la ñuy indi bu soobee yalla ñu arrière ko balaye poubelle bi yëpp duggal ci biir sanni te bu boba di ngeen paré ci internet bi ak poubelle inshallah allahu rabbi mais on le fera avec norme manam duñu ñu li nga xamné mom moy suñu jaar way duñu wacc suñu trajectoire parce que bu len fat ñun ay góor lañ ay doomu góor lañ du ñu wàtt suñu trajectoire bi incha allahu rabbi on va rester sur notre lancée lancée bi ñu nekk ci lañuy ñuy duñ ko wacc parce que fi ñu bëgg ñu dem fa duñ fa dem ce terrain n'est pas propre. Ce terrain est sale. terrain bi dafa salte te ñi ko salteel mooy ñi salte ñi tilim ñi tilim ñoo ko bëgg a tilimal te ñun duñ def loolu ñun dañuy dañuy defar terrain bi ba mu set wicc ñu continuer cee xeex parce que en fait ñun li ñuy xeex loolu rek moo ñu ci intéressé mooy un Sénégal digne Sénégal boo xam ne benn président lay am bu jub boo xam ne day doxal dëkk bi doxal ko ci fullaak fayda nag amul ay sàcc amul ay tappale amul ay xaste fii débat d'idées la ñu wax voilà on demande des débats d'idées on demande que Macky Sall nous amène des idées ay idées yoo xam ne sénégalais yi dañ ci gis seen bopp loolu la ñu wax non newuñu Macky mu ñëw saaga ñu wala mu ñëw won ñu dooleem wala mu ñëw flex ñu ay ay muscle am We want the men to actually give us ideas. débat d'idées débat d'idées rek rek la ñu wax nag débat d'idées ñu nous on parle d'un débat d'idées débat d'idées rek la ñu wax voilà débat d'idées dañu bëgg a indil ñu xam-xam indil ñu xam-xam ci biir dëkk bi parce que dëkk xam-xam moo koy doxal dëkk du banditisme mune ne xana dengan da ngeen bëgg Tunkara fen ci sal bi mune ne feeñ xana da ngeen bëgg Tunkara fanaan ci sal <laughs> du ma ci sal tay mom sama negre. rek <laughs> ndax ngeen ma bëgg yobbu duma fa dem dal nañ ma défaral soup ma nekk ci jamm dëkk bi yëpp nekk ci jamm jamm fi ngeen bëgg ma dem fa duma fa jaar yalla duma fa jaar de Omar Cham mi ngi bind rek Omar Cham mi ngi créer ay problème waaw gars yi ah no doo seen mor <laughs> wala gars yaa ngi créé ay problème gars yi daal soo leen bëggee seen tunkara tunkara xaw ma ban tunkara tunkara sénégalais nekk ci jàmm ñaanal leen ma jàmm rek suba nag dégg naa gars yi dañuy fori tànk dañuy wala toppi tànk la ban la ci bugaan mooy topp tànk gars yi defe naa suba ñoom dañuy dem euh, seeti euh, mbo euh, kii nuñ ko tuddee waay waaye Yewwi Askan bi naka lañ ko tuddee hmm? waaye Yewwi Askan bi am na tur bu ñu jox mbir mi de defe naa suba xaw ma dañuy dem euh, fori tànk xaw ma nuñ ko tuddee noonu ah nuñ ko tuddee am na nuñ ko tuddee de fàtte naa tur bi de am na nu ko Yewwi Askan wi tuddee am naa suba moom dañuy doxantu maanaam Bart ak Ousmane Sonko dañuy doxantu ci biir dëkk bi nañ leen gunge nag. nañ leen gunge ak doole nañ leen gunge waxtaan ak doomu aadama yi <laughs> waaw mais seen seen formidable kii ka <laughs> waaw mais seen formidable moom xanaa dafa yeewu ci ay nelaw rek commencé saaga nit ñi moi je comprends pas ces gens là mais pourquoi vous insultez les personnes comme ça bu leen saaga nit ñi ah li Pape Alé Niang wax la bu dee seen yaay yi ak seen baay yi dañoo lëkkaloo te mbir mi neexul woon ngeen nekk fi di saaga nit ñi noppalu leen peine perdue arrêtez d'insulter les gens 4, toujours beaucoup qui gisee nee nañu mbir yi lëkkaloo bi moo moo kiiwuloon Il ah, y avait pas d'amour vraiment amour mooy lépp bàyyi saga. saaga tiit ci il i ay nelaw saga. bëgg a saaga nit ñi ñu ne tibb tànk tibb tànk ah dox mbokk voilà dox <laughs> dox mbokk ah déet de tànk moom modon ji la bugaan moo de tibb tànk moom bugaan dañu dipp dañu tibb tànk dañuy dox mbokk voilà dox mbokk voilà dox mbokk voilà donc suba prési ak suñu député du peuple le nouveau député de Dakar monsieur Barthélémy mu ne yow mu ne yow sa mentalité bokkul ak gars tu es un tu es le meilleur <laughs> mentalité yi li tax bokkul je les ai dit je suis patriote. Mais en fait, moi, je suis venu dans ce pays mineur. Man, bimayne ou tireumi, j'avais peut-être 13 ans. 14 ans, 15 ans. Non, moment-là, 16 ans, 17 ans. Bimayne ou tireumi. J'ai 49 ans. Man, suis vie, à lila. C'est lila Voilà. Comme je l'ai dit, gise non, akseni wa yubari. Ben copain la amti à Ben. Je n'ai qu'un seul copain. Ben harit la ham. yor nañu dal seeni wax yu bari ak seeni ay saga di saga nit ñi di leen xass lu nañu dugg ci man ben xarit la am te yéenewuma kenn lu bon Sénégal yépp jàmm laa leen yéene Sénégal yépp dama leen di ñaanal yàlla ngeen nekk ay milliardaire Sénégal yépp lay ñaanal pour ñu yàlla def leen ay milliardaire parce que ñoom dañoo bëgg a xaalis donc yàlla na leen yàlla may xaalis bu bari loolu laa ñaan non bu ma nee député du peuple Barthélemy moo may wax Barthélemy rek lay wax né notre député du peuple parce que Barthélemy inshallah allahu rabbi bu ci yalla andé mom moy don député euh, fofu di Dakar bu ci yalla andé fan yi bu ci yalla andé mom moy don député Dakar bu si sobe yalla sunu borom inshallah allahu rabbi Barthélemy moom député Dakar donc bu ñu paree ci lolu inshallah Ousmane Sonko dal di don député euh, Ziguinchor coow li dal di jeex voilà c'est rek la ñuy lan moo leen tu n'as pas pris la nationalité euh, en fait non j'ai tous les documents légaux qu'il me faut bul moi j'ai un enfant qui a déjà presque 21 ans fi ci dëkk bi sama taw déjà am ans. ans donc defe naa boo patriote man nga am kayitu dëkk bi yëpp waaye li nga xam ne moom mooy par exemple citizenship mooy nga renoncer sa nationalité ci beneen réew pour nekk nationalu beneen réew non loolu mosuma koo renoncer je n'ai jamais renoncé à ma nationalité sénégalaise parce que je suis un sénégalais très fier et je veux rester sénégalais jusqu'à ma mort nag ba ba may dee dama bëgg bu may dee ñu ne Ousmane sénégalais ba dee na ñu yóbbu ko Sénégal suul ko fa incha allahu rabbi ba vraiment. ñaanal ma nag yóbbu ma ci suuf yu barkeel yi ñaanal ma loolu laa gëm voilà notre maire maire voilà le maire de Dakar euh, kii mi ngi bind Mati Ba Mati waa kii gal la chéri papa wala Mati sama siste la wala